Omar Saliou maa ngi lay ziare di la jox sa wàcc waay waaw di wax ne lii nii bataaxal la bu jógee CNG ñu koy wax lettre circulaire euh, bataaxal bi nag dafa jëm si li nga xamante ne ni tey euh, moom mooy euh, organiser làmb ji rawatina bëre dóor bataaxal bi nag le président du CNG moom moo ko signé di biraa Sène Euh, solos bataaxal bi nag ñaari poñ la bi si njëkk ñoom def nañ jàngat ci li nga xamante ne mooy certificat médical yi euh, gis nañ ne saison yi nga xamante ne si la ñu jógee li nga xamante ne moom mooy ay certificat médical yu ñu déposé euh, lu mu yàq moo ëpp lu mu defar ba tax na bi ñu defee jàngat boobu ñu def taxaw seetlu jël ndogal ci li nga xamante ne mooy saison yi nga xamante ne moom la ñuy dëgmal ni nga xamante ne noonu la daan demee mbër boo signé contrat war a bëre nga feebar nga blessé wala nga wopp da doon dem si sa médecin bi la doy mu defaral la certificat médical maanaam mu saytu la nga jël kayit boobu yóbbu ko CNG après ñoom ñu soog la boole ak seen médecin ñu ne doxalin boobu ci boppam moom la ñuy soppi léegi li nga xamante ne moom la ñu décidé ci saison yi nga xamante ne moo nekk suñu kanam bépp mbër boo xamante ne signé nga contrat. war a bëre ci wàccaay bi lépp loo xamante ne dal na la muy blessure wala wopp wala ngay yëg ne sa yaram dafa sutante dootoo demati ci benn médecin mu lay saytu ñuy jël kayit boobu di ko yóbbu CNG même boo ko yóbboo CNG ñoom duñ ci duñ ci basé wu li nga xamante ne moom lañ jël comme dogal mooy que ne yow mbër moomu signé contrat blessé wala wopp da ngay jubal directement ci commission médicale CNG commission médicale u CNG nag mooy commission bi nga xamante ne nii mooy saytu wàllu wér-gu-yaram boo fa demee ñoom ñooy saytu euh, li nga xamante ne tey euh, jàpp nga ne mooy sa jàngoro buñ ko saytoo nag euh, ñoom ñooy jël dogal ci waaw li lay metti wala li dalal mën nga cee bëre wala déedéet mënuloo see bëre lii nag circulaire la te bu xësee ba jóge CNG rek ñu bind ko signé ko par le président donc dafay dugg ci li nga xamante ne mooy règlement bi jaar na nag fi mu war a jaar euh, benn mbër amatul possibilité di wax ne lii yëguma ko woon parce que bu xasee ba génn rek ñu notifier ko manager yi notifier ko écurie yi amul mbër buy bëree te manager signalu la wala jóge woo si écurie niñ ñu koy waxee rek nul n'est censé ignorer la loi donc mbër yi nañ ko xamee noonu euh, te jàngat la boo xamante ne lu am solo la décision bu ñuy saluer la di profité si occasion bi aussi di ci remercier le CNG ndax dina dimbali Euh, mbër yi maanaam mbër yi nga xamante ne ñooy war a bëri seen combat di yàqu dina dimbale aussi tamit promoteur yi waaw maa ngi si kàddu yi bu wér a wér